mbokk yi dellu nañu di leen yi nuyu di leen ziar di leen dal jàmm ci Feus Net ci beneen IFM lundi bu nekk ak vendredi bu ne dañuy tàmbali ci comme senego.com senego.com ñëw na ci li nga xam. njiitu réew mi moom Macky Sall doon dajeek ndaw ñi foofu ca ji jam ñaajo gannaaw li nu mel rek digi bi toll si ñeenti téeméer ak juróom fukki milliards ngir jàppale ndaw ñi ñu am ay xëy li ni mel moom njiitu Pastef Ousmane Sonko daal na ci àddu nee moom mi le président de la république Macky Sall li muy wax daara du ci dëgg ay naxe kese te ay kasaw kasaw rek la nee na moom njiitu réew mi Macky Sall mënul def résultat ci li nga xamante ni moo jëm ci nguuram ji mu nekk ah, te it bu fekkee dañu naan dañu koy bàyyi mu daal di jeexal mandaam waaye nekkul ni rek dañu koy may mu def lu ko neex. moom Ousmane Sonko nee na digge bii nga xamante ni mi ngi ko diggee lu toll si ñeenti téeméer ak juróom fukki milliards ngir jàppale ndaw ñu am ay xëy nee na lu ni mel ay naxe rek la moom président Macky Sall mënu ko tàllu ko te sax dafa tële. bu ñu jógee ci senego.com sans limite ñëw na ci li nga xam ni moo indi woon na ay fitna fii ci biir réew mi gannaaw moom ile Ousmane Sonko ñu tuumalaan ko euh, ci wàllu viol tuumal googu noonu ci wàllu viol googu. te mu waroon dem wuy ji ca yoon mu daal di jur fitna bu métte métte ba ñu bëri ñàkk seeni bakkan kon président Macky Sall gannaaw bi mu ne nemm nay dégg na askan bi rawatina ndaw ñi ci wàllub wutum xëy léegi nag loolu dana ci xar tànk tubayam waaye président Macky daa moo ne nekki wane na meram ci li nga xam moom mooy takk der yi nee na daal li nga xam ne moom mooy fitna gi fi yeggu yeewoo woon te mu amoon jàmbaarlu ba am ñu ñàkk seen i bakkan takk der yi seen i njiit géré wuñ ko moo tax ba rek lu ñu mel moo tax indi sabab président Macky Sall dàq kii euh, njiitu njiitub DGPN di Ousmane si Ousmane si boobu gannaaw bi nga xamante ni def fi ñëwoon wutu fi ki nga xamante ni moo fi njëkkoon nekk moom mi lee Ousmane Sy yàggu fi yàqu fi président la République Macky dàq na ko li ni mel di wane ne rek dafa mer gannaaw fitna bi nga xam ne moo fi yeewoo woon kon ci fitna googu ba tey la ñuy des ndi moo tax ñii di waa Yerim Post wax nañu police nationale dina am yeneen ni équipement yu bees muy ay oto blindé oto yi nga ni moom mooy sotti ndox yi kon mu mel ni ki daal oto yu bees danañu ko amaat ana lan moo tax ñu indiwaat oto yu bees yooyu nga xam ni ay blindé la te it muy oto yuy sotti ndox ak ñi nga xam dañuy nekk ci kaw di tiire ay fetal kon daa mel ni kii rek nguur gi mi ngi waajalaat boppam bu baax a baax a baax bu beneen fitna yeewee ko waat fii ci biir réew mi gannaaw bi ñu dàkkee Ousmane si ñoom waa police danañu am ay équipement yu bees muy ay woto yu bees tàq Sénégal la ñuy daal di jeexalee wax ñu ci li nga xam ne moom mooy wàllu mbëkk mi kon Barça walla barsak démb ci alxames bi yemook ñaar fukki fan ak ñett benn bateau moo jóge woon foofu ca libi doon dem foofu ca réew pa Espagne mu mel ni kii rek daal di nay suux ci biir géej gi lu toll si téeméer ak fanweer ci ay migrants. ñoo nekkoon ci biir gaal googule daal di suux waaye ca la ñu wax ci ay xibaar amul kenn koo xam ni moo ca mucc kon téeméer ak fanweer maanaam cent trente migrants ñoom ñëpp ñàkk nañ seen i bakkan te it ñu ngi wax ne rek ñu ngi jiiñ ñi xam ñoom ñooy garde côtes ndaxte gaal googu laata muy suux bi ñu jaaxlee lool doon nañu woote wàllu lu yàgg yàgg waaye musuñu leen a wuyu wàllu googu musuñu ko am. ba tax nañu ci nekkoon ñëpp toll si téeméeri ak fanweer ñàkk nañ ci seen bakkan kon mbëkk bi tàmbaleeti na nañu xool naka lañuy ñuy ndaw ñi fii ci biir réew mi jàppaleen ci xëy waaye tamit jéem a indi dal fii ci biir réew mi ndax réew bu am dal mbëkk rek lay jur ak ñuy ñàkk seeni bakkan